monsieur le gouverneur ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax ci ni nga dirisee CRD bi dirisee nga ko ci yéene ak pas-pas dirisee nga ko ci compétence ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan te wéral la ak mboolem chef de service yi fi nekk yëpp ndax kenn ku ci ne la mu man wax na ko la mu yéene wax na ko sax am na lu ñu sàkkuwul sax ñoom ñu fàttali na ko ba ñu bañ def kon loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax di sant itam maire bu Touba ndax liggéey yu mel ni yàgg na cee yëngutu yàgg na cee def yàgg naa defal liggéeyu màggalu Seex sàmba lu bari xëy na daaw lañ ko deful ngir ay gàllankoor waaye at yi ñu koy def yépp da ciy am taxawaay bu rafet ñu ngi leen ci sant bu baax di sant ci biir lool moom itam maa u rahma ndax moom it xëy na sëñ Moustapha Dieng mi mi ko mi ko jiite dafa am gàllankoor waaye warul na ñëw teew te wóor na ma ne suy délégation demee ci moom la ci war la mu war a def yëpp dana ko def am mat sëkk incha allah ñu ngi sant itam tubaa ca kanam ñoom itam dañu xam ne dafa am mission particulière bu ñuy def boo xam ne moo tax bëgguñu di leen woo ci yu bari waaye lu ñu dégg ci li ñuy def lañu am ci logistique danañ ko indi danañ ci jàppale ba mu mel na mu mel ndax sëriñ abi bu xam nañ ko bu baax te nun ñëpp ci Touba ci kanam lañ bokk kon ñu leen sant bu baax di sant itam nag mboolem koo xam ne kii amoon am nga yéene ju rafet ci bis bii la nga ca man nga def ko ci buñ boo déggee sa tur ak boo ko déggul chef de service fii jël engagement itam ndegam màggal gi xat na du mën a am évaluation kenn ku nekk na ko bàyyi xel ba bala ñuy àgg la vingt cinq yu ci bari mën a sotti lañ ci war a def yëpp ñu mën koo def loolu monsieur le gouverneur ñu la koy ñaan nga rappelé leen ko bu baax a baax surtout ñi nga xam ne moo jëm ci wàllu Euh, bois mort bi nga xam ne bois mort bi nga xam ne danañ koy soxla ci lu bari ci li ñuy def ci bisu màggal gi ñu fexe ba autorisation yi teel a genn ñu mën koy yónnee ña nekk foofa ci Tàmba ñu mën a am jumtukaay yi indi ko ba duñu am benn jafe-jafe loolu moom it ñu la koy fàttali bu baax a baax gouverneur di sant yàlla bu baax nag di gërëm itam bu baax ndax ñii fi toog ñëpp day dara du seen yitte lu dul liggéeyal Seex Masamba rek dara du seen yitte lu dul bisam mel na bis yépp ndax loolu dafay koo xam ne noonu la toll ci Sëñ Tuuba nii ko Abdou Wahab Gaye waxe léegi rek mooy li ci ëpp solo mooy Sëñ Tuuba mas na jóg bis ne damay bëgg a fatu waaye koo xam ne am na lu muy wax na ko wax ma sàmba koo xam ne am na lu muy joxe na ko ko jox ku ko mënul delloo la nga yoroon sëñ Tuubaa def na ko wax na ko ci biir discours bi léegi kon Cheikh Massamba foofu la nekkoon noonu la taxawe woon dox yi doxinam noonu la woon fa tabaarakallaahu waaye dara mayu ko ko nag lu dul bëgg sëriñ Tuubaa ba mu jeex tàkk waaye bëgg lislaam ba mu jeex tàkk doon taalibe itam bu baax waaye nag doon lépp ci sëriñ Tuubaa kon loolu lu ci baab wax ak liñ ci njëkkoon wax doy na sëkk fa tabaarakallaahu ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di bu baax a baax bàyyi kenn di santit comité d'organisation bii nga xam ne moom la ñu àndal te yor màggal gi am nañ ci pas-pas am nañ ci yéene am nañ ci bëgg-bëgg fa tabaarakallaahu bëgg nañu mu mel ne màggal yépp ba bu àllëgee si biir nu mu war a fu mu war a àgg mu man faa àgg ndax bis yi kat seeni borom rek a koy defar nag keneen du ko defar état nag dana ci jàpp li mu man waaye li ñoo seeni borom koy def kon loolu nañ ci góorgóorlu bu baax ñoo ngi gërëm ñëpp desant sant ñëpp di ñaanal ñëpp ñu àgg ci ak jàmm te génn ci ak jàmm te lépp loo xam ne ñaan nañ ko fa ci ay kaamil alquran ñaan ko fa ci ay xasida nañu ko yàlla na ko suñu borom nangul mas aatu aatu jaañ ci nekk is bu tarxiya de déglu dee damay dee aatu laa wax aatu jaañ mi nekkoon is bu tarxee daf daa def fu ma gisee ci cérémonie yooyu daf may wax ne sëñ bi seen yëf lañ yor de li ngeen yor de Seex ma ko moom daal di génne àddiyee di ko joxe sax ndax loolu ku am pas-pas la woon te sëñ yuusu mii fi nekkit noonu la mel kon ñu ngi leen di ñaan ñoom ñëpp ñu participer ci bis bi liñ ci man lépp ñu def ko ci ñoo gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf ginnaaw bi ñu sant yàlla bu baax ñu ci yonent bi sant borom Tuubaa bu baax ndax euh, mooy suñu lépp ndax kii dégg naa sànq mun a ragal féete xaw ma ko waxee noonu xelal si ñun ñëpp ay taalibe leen mm, xanaa buntu yee bëri rek ñu ñëpp ay kii moom xamante ne baax ndax ñoo bokk sëriñ ñoo bokk ñoo bokk suñ sëñ bi ñoo bokk sëñ Fallou ñoo bokk sëñ Basiru waaw sëñ Basiru mu sëñ Fallou mooy sama la mu mooy sama wasila mu sëñ Fallou donc moo tax nag euh, màggal gi ñoom ñoo ko bokk ñi ñëpp ay taalibe fi rek ay jullit hmm. toog nañ tey nag di waxtaan pour màggal ku xam ne daal ku mag la ku mag la ku am cër ci biir yoonu murit ndax ñu ñëpp yàgg dégg ñu lii daajo waa kër sëñ Masamba amul kenn ku ko mos di ku xam ne fii bu ñuy jàng nga xam ne kii ñoom ñoom ñoom xam na li ñuy jàngee kii kon nag bu ñu fa toogee di def réunion pour waajal màggalam yaakaar naa kenn ku ne war nga xam ne yow boo ci demee demee ko pour gouverneur demoo ko ndax da ngay demee seen ndës bopp ndax kenn ku ne fi ngay liggéey fi nga bëgg a amee ngërëm kon nag yaakaar naa ñu ñëpp pare nañ ci mais nag dañ ciy war a sant bu baax mairie Touba ndax mairie Touba daal xeexoo bu ñu am ñëw neen bu ñëwee aussi dañ ci indi seen participation def ci jëmmal ci bis bi loolu nag mooy wane na ñoom it xam nañ lu tax ñu samp leen ndax euh, bu ne mairie mooy ko xam ne dafa war a dimbale état bi moo tax ñu ñu samp ñu gën a jege population bi gën a xam seen seen seen bëgg-bëgg gën a xam seen tawet pour ko saafara te yaakaar loolu si Touba kii mairie mi ngi fa gërëm gërëm aussi Touba ca kanam ñoom aussi ñu ngi liggéey liggéey bu rafet ci biir Touba loolu aussi foog ñu sant leen di gërëm aussi chef de service yi fi toog kenn ku ne xam ne bis bi sa bis la kon nag li ñaan daal mooy ah kenn ku ne daal li nga jël fii nga ñaar yàlla vraiment yàlla may la kattan may rek dal ba nga mën ko matale léegi nag bu ñu demee ba le 25 préfet comme jege na leen sous-préfet jege na leen ñoom fekkee sax mën nañu déplacé yu ñëw ci yéen ngeen xool lu ñu mën a rëx lu xam ne da xaw na dëng nu nu jubbanti ko mais nag yaakaar naa bu ñaanee rek bu ngeen ñaanee hmm. yaakaar naa rëq-rëq du ci am kon nag euh, loolu daal leen amoon te aussi nga ñaanal aussi réew mi ñaanal réew mi ndax euh, boo xoolee réew yi ñu wër jafe-jafe yi bëri na te jafe-jafe yi am comme léegi dem na ba ne àdduna si benn la oh, léegi dana am àdduna si benn la lu xuri benn réew rek ak lu mu la sori sori rek dina am répercussion ci yow moo tax nag vraiment soxla na la ngeen ñaan yàlla def jàmm ndax jàmm ci lépp xaj bu bu amee jàmm rek yaakaar naa ne population dara am daram kii daala na mën daal di gërëm préfet di gërëm sous préfet les forces de défense tous les services techniques yu nekk fii kenn ku ne daal yaakaar naa ah engagement ngi jëlaat den ko li des daal mooy ngeen travailler ak euh, les chefs de service ak comité d' organisation bi continuer liggéey bi bu ñu continuer fii ba 25 bu amee lu ñuy rax ñu kii ko mairie ci des chefs yaakaar naa bu fekkee eaux et forêt pour matt mi moom dana ko wax mu jàppale leen ci permis bi comme ça ngeen am ko bu Senelec dana wax aussi ñu def li ngeen wax branchement yi ci jour cérémonie officielle bi courant bi doy mm. soobee yàlla dañ ci taxaw pour defar ko Sonatel aussi dana wax pour mu jàppale leen ndax ngeen mën a am vraiment bu bañ a am kii communication téléphonique bu baax loolu daal laa amoon vraiment di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax sëñ bi ne comme li ñu tëj ndaje wax ah, ndaje jullit bu ñu dajee ñu tëjee ko nga ñaanal ñu ñu ñu mën a tëj ndaje mi asalaam waaw ربنا تقبل منا انك انت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واسترنا وارحمنا أنت مولانا وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله طويل لنا عمرنا سهل لنا عبدنا وهبنا رشدا وتوفيق يا الله فتاه وحاب يا رزاق يا ملك يفتح أبي وارزقني كل والتف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا وصل الختام ربنا وصلي لنا وسلم وقد بحاجتنا آمين آمين la séance est levée merci jërëjëf jërëjëf bu baax waaye rafet na li war na bëggoon defal ko